renouvelé waat nañ ko mooy doléance yoo xamante ne dañu bëgg direction bi jàppale liggéeykat yi ci seen wàllu mbébét mbébét yi nag bokk na ci fonctionnement liggéey bi ni muy doxee dañ ciy dugal suñu loxo pour liggéey bi gën a oom beneen bi ci tegu mooy ñu ngi ciy wax pour ñu gën a xoolaat suñu nekkin ci biir entreprise bi par les grilles salariales ñi ngi wax tamit pour suñu lendemain suñu yàlla mayee ñu liggéey ba retraité pour ñu mën a am retraite complémentaire ñu gisee ni foo xam ne suñu produit présent wul daañ ci wax concurrent bi aussi bokk na ci li ñu gën a yàq suñu liggéey parce que ñun dañu jël ay charge Soboa dafa yore ay charge charge yi mooy lan dañu amee ay permanent amee ay intérimaire am ay CDD ba pare di fay ndox ci dëkk bi di fay courant di fay lépp ba pare am ay importation nga xam dañuy dugg charge yooyu yëpp waru leen vraiment ñuy jël part du marché bokk na ci li ñu gën a sonal. état bi li ko ciy lancé mooy mu gën a xool les sociétés résidents fii ci Sénégal société yëpp société nekk agroalimentaire yëpp mu xool leen xool traitement yi ñuy def ak. concurant bi concurrent bi bokk na loo xam ne moo gën a freiné liggéeykat yi ci suñuy revendication parce que euh, production bi aussi su doxul revendication pour ñu satisfaire ko day jafe te loolu dafay indi ay ay ay gàllankoor yu bari moo tax état bi li ñuy lancé mu gën a gëstu travailleurs yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal di liggéey ta nekk fii di résider kooku uute na ak ki nga xam ne day importer fayul benn charge social day importer ay conteneur jël ñaari pousse-pousse rek muy livré kooku c'est différent ak ki nga xam ne day fay ay charge te ñun nag fii ñu ngi góorgóorlu def suñu kemtalaay kattan ba lu ñu mën a taxaw liggéeykat yi pour ñu am ko ci seen activité ak ci suba bu ñu nekkatu liggéey kat message boobu la ñuy lancé état bi luñ ci mën a jàpp gën ko see jàpp rek